jaajëfal leen ci bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu 5M TV Sénégal jaa jëf ci teewlu bi. Sonko li mu yàgg wax ndaw ñi nañ génn nañ génn waxul benn yoon ndaw ñi génn leen xeex ak ñi mais nday ndaw ñi si boppam ñoom ñooy génn ngir xeexal seen réew. ndax duñ nangu ñu lëkkatee Sonko Sonko li mu wax mooy ginnaaw bu ma dénkee yàlla sama bopp yéen laa yaakaar te loolu am na droit wax ko te placé na it ci wax lu mel noonu ndax askan bi moo tax moom ñu dàq ko fa doon liggéeyee. koo xam ne askan bi tax ñu dàqal fa nga doon liggéeyee ngay wër di xeexal askan bi ñu lay teglu lu metti di la teg lu metti ba nga nekk député di wax ngir askan bi ñu lay yuuxaloo si biir eh, assambale bi la teglu lu metti sa kàddu sax parfois la koy xañ loolu lépp nga koy xañ ngir askan bi sa njaboot nekk ñu si jàmm amutoo benn sécurité ci sa dund loolu nag jaadu na askan bi nga xam ne moom lay xeexal ñu jug défendre ko te man nag maa si jiitu ci ñu koy défendre moo xam ci kurus moo xam ci génn taxaw wax dëgg bi